Well, porque vos para te digo. Quiero que te vas para. Como está. ren macha allah mu ngi tawaat wër kaaba gi juróom-ñaari yoon tey ci guddi aljuma bi macha allah ñoo ngi fii wër kaaba gi tey ci guddi aljuma bi macha allah. macha allah ci guddi aljuma bi macha allah di wër kaaba gi di def tawaab di ñaanal suñu borom. di ñaanal yàlla yàlla defal ñu jàmm ak tawfeex njaboot gi ak taalibe yi macha allah ak képp kuy soppe Thierno Moule Sow rek maa ngi lay ñaanal ci guddi aljuma bi macha allah naan la juma mubarak juma mubarak fii ci Kaaba bi fii ci Haram macha allah fii ci Makka waaw ñoo ngi nii di tawaab macha allah amagum naa benn maqaama suñu maam Ibrahim moo nekk noonu maqaama noonu. ñoo ngi fii macha allah août ñoo ngi fii le 2 août macha allah 2024 fii ci Kaaba gi macha allah ñoo ngi tawaab wër Kaaba gi juróom-ñaari yoon macha allah ngeen ànd ak seen mbokk seen xarit seen soppe le xalif général de jinne Thierno Moule Sow le king of the king le roi macha allah soppe yonente bi macha allah. आज ब्लॉग हुआ छठा चल रहे हो छठा ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرصون تشركون أفرأيتم النار التي تون أنتم أنشأتم شجرتها

تدعني في هذا المكان ولا تدعني في هذا المكان اللي يكرم المسجد المعظم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا مرضا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عينا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا خوفا إلا آمنته ولا حزنا إلا جمعته ولا شملا إلا جمعته ولا غالبا إلا حفظته ولا غالبا إلا حفظته وأثنيته ولا دينا إلا أديته ولا دين إلا أديته ولا حاجة من حقائق الدنيا ولا فيها رضا ولا صلاح إلا قضيتها يا قاضي حوائج السائلين يا رب العالمين ما شاء الله dinañ ñaar def tawaab macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah xeer bi moom moo jóge aljanna foofu ngeen gis noonu foofu laay jaayante saa su ne euh, dem dugal foon macha allah yornu ko foon ko dugal fa suma bopp foofu laay jaayante waaw kon boo eggee fi war nga ko nuyu boo ko nuyoo keroog àllaaxira macha allah dana ne Thierno Moule Sow ñoo na nuyu ma nuyul na ma aussi taalibe yi. nuyul na ma njaboot gi ak soppe yi ak am di jàmmam yi macha allah yal yàlla fayal ñu yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag am na ñaar ba tey ñoo ngi def suñu tawaab ñu defaale duwaaw وأنت الله واغفره وما كان لخلقك تتخلى عنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين Oh macha allah am na ñett allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah am na ñett macha allah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 يدعى من دون الله يدعى من دون الله اللهم ادخل الجنة برحمتك اللهم ادخل الجنة برحمتك من النار وعافني من السحر وعافني من السحر وارزقني من الحلال ماشي يا حبيبي عايز حاجة أنت؟ وشرف سقة العرب والعجم والعجم يا ذا المجد يا ذا المجد والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف ضاعف أستغفر الله أستغفر الله الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم يا غفار يا ستار يا أيوب كافرون يا مطلب يا قلوب والأقصى ثواب عليه করাবো في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة macha allah am nañ ñeent tawaab asalaamaaleykum wa rahmatullah xam ngeen fee sama ruq baa ngi noonu ndeysaan <laughs> macha allah suma bërëb baa ngi noonu damay tawa ba pare ñëwaat jaayante comme d'habitude démb nag suma portefeuille moo fi war waaye alhamdulilah gis naa ma asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum taalibe yi nuyu nañ la asalaamaaleykum mule muley nuyu nañ la asalaamaaleykum soppe Cerno Mulay Soy nuyu nañ la asalaamaaleykum njaboot gi nuyu na la salaamaaleykum la xalif général des jinne le roi médecine traditionnelle na la am nañ ñeent macha allah ñoo ngi wër kaaba gi ba tey def tawaaf macha allah di sant borom bi subhaanahu wa taala nga xamante ne mooñu ñu sàkk kaaba gi wax maam ibrahim ñëwal woote maam ibrahim mu ne ko na tabax kaaba gi mu yabal jibril jibril dem aljanna jël fa benn xeer indi fi mooy bët bi fu mu nekk noonu macha allah makkaama maam Ibrahim moo nekk ne ndeysaan kon nag moo ngi noonu kenn du rasulullah sallallahu alayhi wa sallam defe naa ne ñoo ngi dox tànk yonente bi am na ñeent tawaab na ñeent macha allah juróom-ñaar la ñu war a def waaw ñoo ngi ñaan aussi di ñaanal taalibe yi di ñaanal ñu bëgg Thierno Moule Sow ñu bëgg la xalif général gis naa em ak zem di leen ñaanal bu baax ci tiktok bi macha allah di ñaanal ñëpp vraiment ñi nga xamante ne ñi ma bëgg maa ngi leen di ñaanal ñi ma sopp aussi maa ngi leen di ñaanal bu baax ñoo ngi sant bu baax ñoo ngi fii di def suñu jaamu yàlla yi macha allah di def suñu farata yi macha allah ndax lii dafa bonk ci ponk lislaam dafa bokk ci ponk lislaam macha allah képp kuy jullit rek bu la yàlla mayee kàttan ak doole am am war nga mun a egsi fii waaw kon nag di ñaanal ñëpp macha allah di ñaanal jinne yi ak nit ñi nga xamante ni ñu ñu tuubal ñi ak jinne yëpp ñoo leen di ñaanal ndax du man kese maa ñëw ànd ak mbabooru jinne ak mbooloo macha allah ñoom it dañoo ñëw umra comme man am na ñeent ndeysaan yal na yàlla barkeel yal na yàlla yombalal ñu lépp macha allah di santaat borom bi bu baax a baax. ba mu ñu mayee kàttan ñu ñëw fii mun ko jaamu mun a def suñu ponk yi suñu suñu mun a def suñu faratay yi macha allah santaat yàlla bu baax a baax waaw la xalif général des jinne le roi médecine traditionnel waaw séjour bi yokkaat nañ ko macha allah moo tax ñu dem nañ fu ne dem nañ fu alquran wàcc macha allah dem nañ fi nga xamante ne ci xunt bi la dem nañ foofu tamit euh, dinañ dem yeneen ak yeneen tamit comme d'habitude Medina aussi dinañ fa dem macha allah di santaat ci borom bi bu baax a baax ba tey ñoo ngi ci tawaab bi macha allah petit prince a ngi noonu macha allah di sant suñu borom rek euh, di julli ci yonent Yàlla Muhammad sa alayhi wa sallam muy prince Moulé prince Mouhamed Moustapha Rahman Moulé so ñoo ngi koy nuyu ah, di nuyu prince. Mouhamed Rassoul Rahim ñu ngi leen di nuyu macha allah suma ñaari doom yëpp dama leen tuddee yàlla ak yonent bi allah. tey ñoo ngi fii ci guddi aljuma bi di tawaab macha allah fii ci Màkka fii ci xaraam ci Kaaba gi di fi ñaanal taalibe yi mule mule yi di ñaanal soppe Thierno Moule Sow am di jàmm ñu ko bëgg. maa ngi leen di ñaanal fii yàlla defal leen jàmm ak tawféex di ñaanal suma njabootu bopp macha allah yal na yàlla barkeel yal yàlla matali lépp naan leen macha allah jumaa mubaarak jumaa mubaarak fii ci kaaba gi fii ci haram bi macha allah naan jumaa mubaarak à tous les mule mule à tous les sénégalais ak ñëpp ñi seetaan ñi ñuy bàyyi xel ñoo ngi lay wax jumaa mubaarak fii ci kaaba gi macha allah allahu akbar suñu borom amul morom. waaw bii mooy bii mooy juróom. bii mooy juróom macha allah. mbokk yi nañ bii mooy juróom. salaamaaleykum wa rahmatullahi. nuyu nañ la. ñaanal nañ la jàmm. taalibe mule mule yi nuyu nañ la. njaboot gi nuyu nañ la soppe yi nuyu nañ la. am di jàmm yi nuyu nañ la bi mooy juróom. macha allah xeer boobu moo jóge aljanna macha allah sant borom bu baax a baax ba mu ñu mayee kàttan ak doole ba ñu ñëwee fii di sant rasulullahi sallallahu alayhi wa nabi di sant di la gërëm yow mi nga xamante ne fu ma ne nga ànd man fu ma ne nga ne sama wet maa ngi lay sant di la gërëm maa ngi lay ñaanal aussi waaw macha allah maa ngi lay ñaanal fi yow yónente bi yal na yàlla fayal ñu la yal na yàlla fayal ñu la loolu rek la ñu mën a ñaan ci yónente bi ndax xamuñu lu ñu koy ñaanal ndeysaan lu loolu yal na yàlla fayal ñu ko waaw yal na yàlla fayal ñu ko macha allah loolu lay ñaanal suma turandoo yal na yàlla fayal ñu la sa xol sa xol macha allah ak sa bëgg njoñ jullit ñi waaw ah, yal na yàlla fayal kon ba tey ñoo ngi def tawaab amagum nañ juróom amagum nañ juróom macha allah ngeen ànd ak seen mbokku seen xarit Thierno Moule Sow le roi médecine traditionnelle le king of the king le roi des jinne tey maa ngi fii ci wetu Kaaba gi macha allah di def tawaab yal na yàlla fayal ñu yónente bi yónente yal nañu yàlla fayal yónente bi waaw yal nañu yàlla taax ci barke yi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla taax ci barkeem ci barke Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa yal nañu yàlla taax ci barke yónente bi سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله ولا إله ولا إله إلا الله ولا إله ولا إله إلا الله إلا الله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 ñoo ngi fii ci guddi aljuma bi macha allah di guddi bu màgg nag ndax fi yonente bi macha allah guddi aljuma dafa daan ñëw fii di ñaan loo fi ñaan suñu borom def ko loo fi ñaan yàlla da koy nangu direct ndax guddi gu tedd gi la aljuma guddi gu tedd la macha allah di occasionné wu nag taalibe yi mule mule yi sa guddi aljuma dañu koy def maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp ñi nga xamante ne ñoo def guddi aljuma ak ñi waaj a def yàlla yàlla fay leen yal yàlla barkeel yal na yàlla defal leen jàmm ci barke yonente yàlla Muhammad salaa salaam guddi aljuma bi yàlla na barkeel yéen a xam li ngeen bëgg yàlla defal leen ko macha allah sàmm leen aar leen aar seen njaboot. moo ngi def tawaab macha allah bi mooy juróom benn bi. egsi nañ asalaamaaleykum wa rahmatullahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi nuyu naa la taalibe yi nuyu nañ la mule mule nuyu nañ la macha allah njaboot gi nuyu nañ la la xalif général de Jinne nuyu na la Thierno Moule Sow hmm? turandoo sallallahu alayhi wa sallam nuyu la Muhammad انا شفت انا الملك الاول وبعد كده احمد داي ولا حول علي يدين يعني اسمه انا بعتها والله كبير Thank you. लगाना चुका आपको लगाना macha allah egsi nañ tawaab nañ kaaba gi juróom-ñaari yoon bi mooy juróom-ñaari yoon macha allah fii ci kaaba gi ñoo ngi fii ci kaaba gi asalaamaaleykum wa wa rahmatullah macha allah allahu akbar kon nag am nañ juróomi ñaari yoon tawaab nañ yàlla yaa barkeel ñu li ñu fi ñaan yëpp yàlla def ko yàlla nangu ko ci barkeel yàlla xam ne salaa salaam macha allah def nañ ñaani yëpp def nañ tawaab bi macha allah kon nag ngi fii ci Kaaba gi le 2 août macha allah 2024 macha allah fii ci guddi aljuma bi ci Kaaba ji fii la xalif général day Guinée le roi médecine traditionnel léegi nag xaaral ma dem profité naafile tuuti macha allah def ay naafile waaw ma bëgg a def ay tuuti def ay naafile macha allah en attendant ma ñëwaat aussi après. jéem a gën a jege kaaba gi ma dem def ay naafila tuuti rek tawaab nañ ba pare makaama Ibrahim moo nekk nii suñu maam Ibrahim yal na yàlla fayal ñu la yal na yàlla tax ñu ci barkeem woote bi yëpp moom la suñu borom yabal moom moo ne Ibrahim wooteel macha allah kon nag baa ngi nii dañ gis mu leen mu taalibe bi maqaama ngi nii dal na yàlla fayal ñu la kon nag ma dem def samay naafile profité julli ndax fii boo fi jullee ñaari raxa am nga am nga ay million million raxa kon nag profité la moo tax lu ma mën dama koy def daanaka fii rek sama hôtel ak fii rek laay jaabante macha allah chaque minute maa ngi waaw ma dem nag def samay julli samay naafila macha allah waaw si kanamee ma ñëw jaayante dem yornu xeer bi foon ko comme d'habitude dafa metti nag waaye nag jaa eh, <laughs> borom moo ñu kattanal la waaw daal sama daal réer na fa feeñ na suma paset bi réer na fa feeñ na macha allah suma armal bi wadd na fa tamit feeñ na mu lay mu lay kon nag yéen a ngi noonu yéen a ngi ànd ak le xalif général ma ñëw jege julli waaw waruma sori parce que bu ñuy julli suba rek mu bëgg gën a jege waaw waruma sori nga xamante ne bu ñuy julli suba da ngay gën a jege waa Kaaba gi di kontaan nag di leen ñaanal bu baax waaw macha allah fii baax na mun naa jullee fii macha allah. que des bons. waaw macha allah dama xool espace bu baax rek mu mën a xool bugguma sori parce que. mu def samay quelque naafila mu defee fii samay quelque naafila macha allah nga xamante ne eh, dinaa mën a jege quoi après dinaa mën a xuusaat ba tey yéen a ngi ànd ak la xalif général day jinne le roi macha allah ma def nii julli

akbar Allahu akbar হ্যালো ওই যে কইছি না কাবার মেয়ে এ হাতে কাইয়া বার দিছে না কোন মারে কাইয়া বার দিছে না এ হাত ধরে মিয়া তুমি কইছো মিয়া আমি বুইটা একটা মানে বুইটা দেখছি আমার যদি জানো যদি যায় Gracias. You're gonna, you're gonna go. When are you gonna go? Yeah. All right, I'm, I'm, I'm stay here. I'm gonna stay here. I'm gonna stay connected. Wait for a question. All right. See you.

راح يتكلف ابنائه واشكاله خيرش اشكال بدل ما خيرش اشكال تطور ربنا يخليك الانسان يكون يعني نعم كيف من

Thank you. सारे लगे और एक और गाड़ी क्या कर मैं ये मतलब आप ऐसा ही क्या करें अल्लाह का हुक्म है आप जैसे इसमें अपना गुस्सा डाल रहे हैं ये बंद नहीं है ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ ಆಗು ಎಲ್ಲ ತಲನೇ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಚೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ लगा हुकुम है मैं अपना करना है अपना करना है لا شكرا هي لا تنشأت هنا كون وصلت قبل الدار Tanapi inch 24 cup container. Tanapi inch داخلي او انت عدد جهه زيره عدد زيره داخلي سقيناه داخلي قبل ملاقات اول جهه عندهم عمل ملاقات كما قالوا يتجلب ويستجيب وبعد يشرب

Hafızayla kayıp şeyler. Gidiyor musun maçı? كان يشغلنا ذلك الشيء طالب لمن من شاء منكم ان يتقدم او يتاخر دفعه مثلا ان شاء لم يبهش يا ولد هذا يا بيش بدافع هذا يوم الدعوات من سنه على وش الشيء كل قتيل على سد الداري تفر وقراءة سيدي تقرأ سيدي هم من الزمان سنشهر الحدث قانون كل كل

Thank you. وليس استحزاء بالجهاد لكن سلاح على هذا اسماء زجاجي ولا حاجه بس باطل ولا مش عارف عشان بيت ساكت مش عارف او لا جديد ولا جديد يعني مش عارف هم اللي بيحاسبوا وليس خموه سلم او او او بالله بوزه خابط الخير كانت في احد عرب زي هذا اللي بيصير داري ما بيعرفش Didn't you tell us? That's my dad. Just he's a bad guy. كبير عشان درجة طبعا مشوه صغير في زي الداجة أبو بكر بيرد وعمر بيرد فاطمة خالد قاعد بيرد فاطمة أبو بكر قاعد بس كان فلان سبحان الله يا حبيبي خلينا عباء هذا الله يبارك هذا مش قادر كبير أنا صغير يعني زي شو بعرف انا عملت 20 واحد ليك و20 واحد لطفك عملت 40 واحد طب هات امك امك سمعت البتاع ده معلومها هتعمل ايه بالجوازات هشوف ايه هاتوا انا خلصت بقى عمال دلوقتي اصلي هنا مشكله عملت لك 20 فيديو لصحابها وعملت لك 20 فيديو لاصحابي وعملت لك كذا واحد كذا واحد